Salam alaikum borom fa bind Diop Sangomar man la Pape Diouf le leader de la génération consciente ndaw reuy fête de fin d'année la wax fi lay xewé place de l'obélisque Pape Diouf et la génération consciente ak nag sunu mbokk artiste yu bëri ñoo daje fii le 31 décembre. sama fans yëpp gëjoon ngeen maa gis waaye 31 décembre laay génn ñëw jàkkaarloog yéen wan leen lu bees tàq wan leen ay feem yoo xam ne mosu leen koo gis te lu ma leen mas a wax def naa kon gars yi xoolal ne ko ril bàjjen woni Mata Ndiaye capp leen ko Faya Bonde maan sarax rajaban gars yi li nar a xew dafa wër a kon nag gars je vais vous faire plaisir. le 31 décembre.

sagum gogo sagum dak cororun rago gogo sagum sagum ku dac wa me xew xew dafa am inshallah le 31 décembre place de la nation wa ville de dakar def concert bu mak sek papa diouf wa man bastung nak ma ngi ci bir inshallah rabbi lu nara neex lu nara yeng lu nara yag lu nara metti lu nara tang jër ndax nak deug neexul lolu concert gi dañ ko maye gratuit la na ñëpp concert gratuit ñepp bégee ñepp xappi ñepp fo ñepp ree affaire yaa ngi fii bernde yaa ngi fii ñu tàllanoo ndakaaru ndakaaru leer ñëpp kontaan ñu woye leen ba 6 heures du matin jaajëf